laa ilaaha illallaah Pape Diène asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokku jullit yi asalaamaaleykum mbokku taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp tey siyaar ñëpp di jiital nuyu beeg siyaar bi xalifa général ku nekk sëñ Muntaxa Mbàkke di nuyu tey siyaar xalifa général Cheikh Moussa Cissé di sëñ El Hadj Keba Cissé ñu ngi nuyu tey suñu kilifa bi Cheikh Souleymane Niang ñi nga xam ne si càllaleen lañu naan te xam-xam bi di Cheikh Cheikh Moussa Cissé si seen kaddu kilifa Cheikhouna Cheikh Moundou Mbaw ñoo nar amal ak fukki fan ak juróom weeru septembre muy le 15 septembre bi fële si Kër Massar ku nga xam ne wàcc nga station rek bis boo laajtee dañ nga ko tegtal ñu koy amalee nag muy inte kon nu ma ko waxee rek si karam si ginnaaw pharmacie bi foofu noonu boo ñëwee si terrain bayal bi rek fofu la cant da am wuti cant bi nak deuxième édition delo njukkal Cheikh souleyman Niang mu tomber deuxième édition xare Badar ñu nar see rendre hommage ki nga xam modi moo Baye Ndaw nekkoon ak jambar lool ci yoonu yalla cant bi nak ñu ci wo woo képp ki nga xam rek talibé Cheikh Moussa Cissé nga ñambe borom daaru ñi di la dippee yalla yalla xamna ni bis bi service la nga si woo wér pour nga wacc ko képp nga xam timit yalla atena ngay wax ashhadu an la ilaha illallah ñu ngi lay woo ci bis boobu di woo ni suñu mbokk jàngo yi nga xam ne ñun ñu bokk ki ñu gëm bokk ku ñu wóolu muy di yàlla subhanahu wa taala sang bi nag mu ngi si woo mbooleemu julit mu ngi si woo mbooleemu yàlla yàlla ki nga xam ne yaa ngi bërëb boo mënti ne rek mu ngi si woo waa kër cheikh oman ndiaye waa kër cheikh oman ndiour waa kër cheikh moussa diagne waa kër cheikh idrissa diouf waa kër cheikh moussa touré mu si woo li Cheikh Ahmed Dame ñu ngi koy woo amaana buñ ko limee rek man na ñu ngi woo waa Louga seen ndigalu kilifa di Cheikh Diop di woo tamit Baye Doum Dieng Sandar ñu ngi woo waa Thiaray Azur ku si mel ne Seydina Aliou ku si mel ne Cheikh Ibrahima Cissé ñu ngi si woo waa Grand Dakar ku si mel ne Cheikh Daouda ñu waa Moudaay Séeréer tamit ñu ngi leen si woo ku si mel ne Cheikh Ibrahima Mbodj waaw programme bi nag ñu ngi nar a déroulé à partir de 9h 11 ñu ngi def récital Coran maanaam wàccee kaamil kii ñuy rendre hommage bi bàyyi noonu 11h di def xéwal yi muy berne à partir de 15h30 nag jëm 17h animation zikru laa lay def à de 17h dana fekk conférence bi si kàttanu yàlla mu commencé jëm 22h. à partir de 22h ba 23h dañuy teb diine maanaam muy wàllum xéwal yu weer yi. buñ fa paree dañuy jëm base ba 23h si kat ba une si la waaw cant yi di commencé gars yi yaatal waxtaan si si mu tem li ñu nar a amal mu nekk environnement spirituel. waaw ñu ngi si woo nag mbokku jullit yëpp mbokku taalibe yëpp képp ki nga xam ne Cheikh Moussa Cissé Niamé borom daal moo war a njaboote rek ñu ngi lay woo si bis bi xam ne si bis la comme ni ñu ko waxee si xam ne soxla nañ si teewaayu pour yàlla yi soxla nañ seen doole soxla nañ seen lépp xam ne maanaam bërëb boobu dafa soxla. ya gis nga abah, pernah baax ke baax dulu di wax.